asalaamaaleykum wa mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen ñuy topp ci xew-xew jamono ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit imam Dramé ñu ñëwaat ak yéen nag ci xew-xewu jamono ndax xam ngeen ni réew mi tey fi mu toll nii li ñu naan ñu bari dañoo àndatul ak seen sago te ñun ay jullit lañ jullit moom lu mën a xew rek dafa war a ànd ak sagoom parce que loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi jàngal mooy dal moo tax bi ñu déggee proposition bi nga xam ni Serigne Bara Dolly Mbacke nga xam ni sët la Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar nga xam ni ku am taxawaay la ci réew mi parce que gis nañ position yi muy jël te daf koy jël euh, ci li ñu jàpp ngir réew mi waaye réew mi nag ñun ñoo ko bokk kenn ku ci ne ni nga gisee ngay waxee li mu proposé moom député boobu dafa wax ni nañu annuler wala ñu dàq bépp activité boo xam ni activité religieuse la lu mel ni poroxaan nga xam ni ñu ngi ko jàppoon ci semaine bi lu mel ni ziar général ak appel bi nga xam ni moom la laayee ni di def maanaam activité religieuse yi nga xam day am ci réew mi ci we ci ci jamono yi ñu jëm man nag imam Dramé man sama xalaat laay wax man d'accorduma ci loolu te dinaa wax li tax d'accorduma ci parce que mbokk yi coronavirus kenn ku ne ak gis-gis bi nga ci am man dama jàpp ni malédiction la te loolu laa gëm te waxuma ko sànni dama génn ay aaya ak xadis yu wane ni malédiction la malédiction nag bu amee ci réew li ñu war a def mooy ñu privilégié tuub privilégié ñaan kon lieu yi nga xam ne jàpp nañ ni ñaan man na faa nangu nañ may nit ñi occasion may leen chance ñu dem fa ñaan loolu laa d'accord te réew mi nag façon feebar bu ne xew na fi de te mosuñoo annuler benn événement religieux wala bu fekkee ni parce que mesure bi li tax d'accorduma ci mooy état du dem ci deux poids deux mesures bu fekkee dañuy annuler événement religieux yi nañu tëj boîte de nuit parce que bu fekkee ni lieu de public bu nit ñi daje rek la ñuy wax maanaam loolu mënul nekk il faut ndax état li tax ñu ni état bi mat na état mooy réewam nekk ci jafe-jafe mu taxaw wane ni moom état la fexe ba combattre feebar bi ba ba ba du lor population am te loolu du yàq dara ci activité yi waa réew mi di def waaw te et puis ñaar li mu bëgg a wax c'est important mooy boîte de nuit yi gaa yaa ngi dem ci boîte yi di fecc soirée yi nga xam ni nit ñi dañ koy def kenn annulé ko annulé wu ko lu tax ñu choisir ci bërëbu maanaam bërëbu nitu diine yi maanaam activité religieuse yi kon man d'accorduma ci loolu université gaa yaa ngi jàng de pourtant en fi boo dem ci université la fay nekk ci nit lu mu gàtt gàtt des fois day romb cent personnes kon lieu de rassemblement yi mu ngi continuer di am xam nga tey bu buñ ñu woon ah génn nañ décret lépp loo xam ni kat foo xam ni bépp bërëb boo xam nit ñi dañ fay daje waratuñ faa daje bu waa man dinaa ci d'accord parce que ñun ay jullit lañ bu ñu kenn xoqatal wala kenn bi ñu tiital ñun gëm nañ ni ku war a dee kenn mënul fexe ba nga romb sa bis waaw nit boo waree dee kenn mënul fexe ba nga romb sa bis donte nit du sabab lu dee waaye nit day gëm yàlla nañ bàyyi nit ñi ñu dem ci lieu de saint yi ñaan parce que àdduna bi li fi xew balaa la loolu kenn mënu ko dindi donte ñu yor état ñoom duñu lijjanti loolu parce que ñoom gëmuñu loolu am nañ ci droit mais ñun ñi nga xam ne ay nitu diine lañ gëm li ñu alquran wax alquran moo wax ni wa ma kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfirun aaya boobu buñ ci delloo ñu jàngat ko dinañ xam ni li xew nii balaa la parce que yàlla dafa wax yonent bi ni ko fii ak yaa ngi ci biir maanaam yow yonent bi du ma la du duma mbugal saw xeet fii ak yaa ngi ci seen biir fa ma kaana allahu li yuazibum wa anta fihim mu mel ni saxaaba yi dañ ko laaj ne ko boo fi nekkatul nag fa ma kaana allahu muazibahum yonent bi tontu leen ni fii ak yéen a ngi def istighfar mbugal du wàcc ci seen kaw fa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun kon li ñu war a privilégié tey ci réew mi te déggaguma benn nitu diine wax ci te loolu ci lañ war a wax exceptionnellement Sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko yàlla dëgëral moom laa dégg mu woote ni nañ jàng ay kaamil ñaan yàlla na ko yàlla dëgëral ay wa ayyadahu wa nasara maanaam loolu Sëriñ Muntaxa def moom la nitu diine yëpp war a woote te nag ñaan dafa am bërëb yoo xam ne rafet nañ jort nii lu fa waaye ñaan mu nangu parce que réew mi nag réewum sufiyanke la réewum soufisme la kon annuler ay jàng ki gàmmu nag coronavirus loolu xel nanguwu ko sax parce que coronavirus bi bari na coow lu ci am dinañ ci ñëwaat ci yeneen i waxtaan mais li am solo mooy ñu dalal xelu jullit ñi jullit ñi continuer def seen i activité état bi taxaw sensibiliser nit ñi ba li nga xam ne wax nañ ni précaution yi nga xam ne ku ko jël mën naa fexe ba ba du agsi ci yow ñu jël ko mais bërëb yi nit nit ñi jullit jullit bu jàqee tiit leen rek la mën a def ñaan te bërëb yi ñu war a ñaanee ci réew mi fu mel ni poroxaan ci la bokk fu mel ni tuyaawan ci la bokk fu mel ni laayeen ci la bokk kon loolu xalaat boobu nañ ko teg ci suuf du solution man nag sama xalaat lay joxe ndax man awma waaru dandal gàmmu wala may dandal màggal mais ci réew mi laa dëkk kon am naa droit joxe ci sama xalaat te réew mi nag feebar bu ne am na fi te mosuñoo annuler ay gàmmoo ki màggal wala yu mel noonu te mesure bi sax xel nanguwu ko parce que réew mi noo fexe ba nit ñi duñ joxe seen i activité nañ bàyyi activité nit ñi mu continuer état def li mu war a def état bu mat état wane ni yow état nga yaa wax ni fal leen ma mën naa régler seen i problème bu réew ba nekkee ci problème yow yaa war a wuti solution mais doo annuler lu gàmmu nit ñi France amul benn activité buñ fay def buñ annulé te coronavirus baa nga fa Italie waxi nopp chinois yaa ngi nii malgré laal na seen économie bu baax mais seeni activité ñu ngi ko doon continuer kon débat boobu du solution de waaw du solution nitu diine yi nag am na loo xam ne waruñ waruñu leen ci dugal dañoo war a yeewu parce que parce que boo nee dañuy annuler gàmmu yi te boîte de nuit yaa ngi tëgg hmm? université yi ne ci réew mi ñun ñaa ngi dajaloo ah loolu saway nañ ko seetaat nañ ko seetaat